Euh, quand même ci émission bi la ñu nekk fii la ñu am plateforme. Mhm. pour exprimer wu. dem fu nekk boo amee foo mën a waxee danga ko fay waxee may jéggalu rek. Mhm. di profité ci opportunité bi pour quand même euh, xaw a wax dara di nuyu sama papa ak kilifa di Ahmed xalifa Niass nga xam ni ay doomam jàmm laa sekk ak ñoom euh, mu jëw fii ci si kër gi télé bi ñu jox ko micro mu wax message am yi mu bëggoon wax yépp mais dal ci kaw kër gi dal ci sama kaw te man nag sëriñ bi jox naa ko cër trop macha allah mais kenn du ñëw sama kër di ma xas ma croiser les bras c'est pas possible man Bouba Ndour laa tudd ci dëkk bi laa dëkk ñëpp xam nañ ma télé bi nag nekkuñu fi pour boo ñu bëggee xas xas ñu boo buggee fu ñu la déggee parce que fii la ñuy déggee nit ñi ñu jox leen plateau yi ñu wax ba ñu leen neex ñu jël ñu xas ñu et ñun du ñu tontu man bokkuma si ñooñu quartier général man maa ko créer sëñ bi ñëw yàgg naa ko fi indi muy ñëw du mu ñëwee ma gis que ni wax ñu ñagas daf koy jël teg ko ci ñi nga xam ne ñooy liggéey fii ci biir kër gi lu bëri bëri bëri daaw bi mu ma laajee dama ne man mënuma ko jël ci émission parce que damay bañ exposé ñi fi liggéey parce que aussi booy liggéey ak ay nit da nga di protéger mais ay attaques crypto personnelles yoo xam ne c'est à la limite prémédité ñu préparer ko pour dal sama kaw man du ma ko nangu moi j'ai pas ma langue dans ma poche Youssou nag du tontu mais man lu ma mën a respecter nit jox ko këru kilifa aussi du ma nangu kenn di ñëw di jéem a dal ci sama kaw ma toog di xoole melu ma noonu mu suñu maa dégg fii ma wax dara lu ñagas ci nit respect bi ma am ci sama papa sama waajur moom laa am ci moom mais j'ai encore une fois comme nee na mag laa j'ai cinquante ans du ma nangu kenn ñëw ci sama kër joxe say message ku bëgg Macky Sall recevoir la fii ngay ñëw ku bëgg Sénégalais yi déglu la fii ngay ñëw boo waxee ba pare jël ñi nga xam ne ñoo jiite kër gi nga wax leen lu leen neex loolu moom du ma ko nangu fii famille du du entreprise familiale talent moo fi am ak génie il faut que ñenn ñi nangu ko weddi gis bokku ci te man loolu duma ko nangul kenn donc dama bëggoon je je dama je tenais à dire ça respect bu ma am pour moom yëpp te vraiment su ma sañoon sëriñ du wax wala kilifa di wax ñun ñu si antu mais sama lieu de travail laa am ak sama honneur te du ma nangu ku ñëw ba si sama biir kër wax ma loo xam ne vraiment pour man à la limite boole maag nit ñi la wala boole maag sama mag Youssou Ndour moom ku may jéem a boole ak moom bu yeboo nga yeewu bu yàgg parce que loolu mënta ne man maa ngi tudd Bouba te man j'ai pas ma langue dans ma poche Youssou du tontu man moom bu ma nit waxee benn affaire su ma ci waree tontu ak respect bi ma war a yëpp dama koy tontu mais dama am fulla am fayda à vous de juger merci. jërëjëf kon euh, ñu tàmbali ni ma waxoon